yéen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëggee jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Faaida TV ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot waaye bu leen fàttee ba cloche de notification sallallahu taala wa sallama ala nabiyihi alkarim wa radiyallahu taala ala xadimi rasulihi alqail xamidtu man yaazimuni min addarar min kulli cheytaanin wa wa bachar wa jaala almuxtaaru sallallahu wa alihi man walaahu lahu hijaban mani'an min ad-darar summa lahu khalin shatish ad-darar je suis euh, satisfait dama ñëwoon fii tey wuy si benn euh, plainte boo xam ne moom la ma kilifa gi waxoon ne ma bu sañoon ma yegg si wuy si ci benn plainte boo xam ne un certain Omar Diagne moo ko def contre moi ma ne ko ah yoon de fu ma soxla Tuubaa la ma fekk sax ci waajtaayu ci mbiri màggal gi jeexagul mais ma ne ko damay bàyyi lépp ñëw wu si yoon ci laa ñëwee nii nag bi ma ñëwee ñu ne daal ñu ngi may euh, ku tudd Omar Diagne moo may topp ci ne daal dama ko dama ko saaga may leen euh, saaga bi mooy ban ñu ne ma daal nee nañ dama ko wax ne ko daal doomaraam la may leen lool moom maa wax maa ko wax waaye loolu nag dafa nekkoon ab réaction bu jóge ci ay wax jum wax teg ko ci Serigne Touba. teg ko ci Touba ak sëriñ yi nekk Touba ci dil bu ñuy def boo xam ne dañ koy def diggante mu muharram ak safar ay sëriñ yoo xam ne ñoo ko fay nangu. di jël cinq ak dix pour cent. man may sëriñ sama baay di sëriñ sama maam di sëriñ euh, ma sentir insulte ma wa ma ne ki wax lii wax ji waxi doomiraam la ki ko wax waxi doomiraam la ki ko wax doomiraam la te diw mi ko wax doomeraam la. may leen loolu maa ko wax j'assume a deux cent pour cent te su ko waxaatee ma waxaat ko su ko waxaatoon tey ma waxaat ko léegi donc euh, ñu ne baax na dégg nañ ñu ngi koy yëgal procureur ba xam loolu laa wax après su noppee lu ci procureur wax dinañ ma ko wax may leen maa ngi fii toog di leen déglu soo génnee ay eh, rek ma ñëwaat muy procureur li ma wax ci sëñ Touba maa ko wax te ku ko fi waxati ma wax la ko ma interpellé nag euh, excellence président de la république suma jaam boobu euh, may tooñ lu bëri Diomaye fay mu choisir entre Omar Diagne ak sëñ Touba ak comité Mouride ban la ci jël parce que saa bu ñëwee ci sëñ taxa doom la fay nekk mbokk taalibe la fay nekk suñu xarit la fa nekk nit kuñ sopp ñun ñëpp la fay nekk mais moom bi ñu ko saaga Sousane Camara saaga ko hésité wuñ pour jël Sousane Camara teg ci kaso bi mais buñ saaga sëñ Touba daal kookuy saagatu sëñ Touba boobu daal moom la jël teg ci wetam yamu ci mais doxale koo digganteem ak sëñ Touba loolu moom xaw ma ko woon ci jikkoy séeréer nit day weex mbaa nga ñuul day choisir Omar Diagne mbaa mu choisir Serigne Touba. loolu loolu de pression ci président de la République. non question de pression c'est question de réalité on a lu la réalité la vérité lu ñëpp xam parce que Cheikh Omar Diagne murid yi xam nañ ko bu baax. tëj bi ñu ko mujj a tëj tijaan yee ko porté woon plainte ci wax ju bon ju mu waxoon ci tijaan moom kon confrérie yi xam nañ ko te quatre-vingt-quinze pour cent sénégalais yi fa am islam confrérie lañ yor kon li wér mooy plus de quatre vingt pour cent sénégalais mënoo xëy di leen saaga di leen wax lu bon président ji la teg ci wetam loolu insulte la envers le peuple et le peuple est au-dessus du président de la république donc kon loolu dakk na ku fi waxati ji Serigne tuubaa daal wax ci sax wax ju bon di nga ñàkk jàmm maan nun nu ñàkk jàmm bu la neexee nag jël lu tëj ku mënul sëñ Tuubaa loolu nga jëm ci àll ba ku mënul sëñ Tuubaa yenn du police bi ni ma ko defee tey nga jëm ci àll ba ku mënul sëñ Tuubaa assumer ku wax sëñ Tuubaa lu bon nga saaga ko ni ma ko defee jëmal fa jëmal fële demi murit amut dangay ngay gëm sëñ Tuubaa wala nga baax lii lañ nekk te loolu la dund bi toppaat mooy à ce qui concerne man sëñ Modou bu Niang man awma solo ci communauté sëñ li ma am solo mooy daal li fekk yàlla may may bakkan ku fi waxati sëñ Tuubaa lu bon maa ngi sa kaw kooku amul kaf amul ree l'état nag mooy jërë moo war a jël responsabilité am parce que Omar Diagne est une menace à la sécurité nationale c'est une menace à la cohésion sociale à la c'est une c'est une menace à la concorde et l'harmonie sociale kooku que procureur xam ko que procureur général xam ko que garde des xam ko que Diomaye Faye xam ko loolu leer na nañ loolu nag sëñ Modou Bousso Dieng moom tant que yàlla nga koy may lii ma nga suma mbokki Touba yi parce que ils n'ont pas de choix sëñ Modou Mbacké Bara Dolly amul choix parce que mënul dégg ne Omar Diagne plainte na ma mu tëdd depuis ja fajar la ma woo ngi Dakar honorable député Sadaga amul choix Cheikh Thiam amul choix sëñ Alaaji Mbacké Dieng amul choix sëñ amul choix mun naa leen lim ñoom ñëpp sëñ sëñ Moustapha Gaye amul choix donc euh, soxna Maam Ami Mbacké amul choix Moustapha Cissé amul donc ñi des ci seen i kër aussi amuñu choix le combat na fekk débuté et c'est un combat de c'est un combat président marchand ambulant yi mi ngi fi mais dama ne Serigne Touba lañ dootul bàyyi te confrérie yëpp du Serigne Touba rek. mais imam Baye gi nii. maa ngi koy nuyu di ko gërëm. donc loolu laa leen bëgg a wax ne leen désormais c'est fini ku fi waxati Serigne Touba di danañ la def lu gën a bon. Oh, bon xaw ma sax fu dossier bi toll mais daal maa ngi gërëm flux yi ma fi fekk police commençant par le commissaire Kandé Ali Kandé. yar rek lañ ma wan yar fu yar yam ak teggin ak xam seen liggéey rek lañ fi def ak sama avocat Maître Cissé maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di gërëm ñëpp te di leen wax ni leen le combat na fekk commencé préparez-vous les mourides dama ne cette cette cette stratégie de déstabilisation d'un conflit des confréries ne marche pas vous êtes le peuple vous êtes majorité quatre-vingt-quinze pour cent musulmans yi fi nekk c'est un c'est des musulmans confrériques jël leen seen matuwaay que le président aussi prenne ses responsabilités parce que c'est le garant de la cohésion sociale on écarte Omar Diagne loolu maa ko wax je ne regrette rien docteur loolu ñëpp ci ànd murid wax pas les murid mais tous les musulmans du Sénégal ñoo ci ànd te Diomaye fay dina choisir entre murid yi tiijaan yi ak xaadir yi ak ñi am mm. mbokki taalibe yi ak Omar Diagne parce que Diomaye Faye it xam na lépp xam na ni kii saagakatu Sëriñ Tuuba la saagakatu communauté Mouride la loolu waru ci noppi je l'interpelle du dëgg donc am na pétition bu nekk en boo xam ne aussi sëñ Modou Bara Dolly Mbacké moo ko moo ko moo ko moo ko mënee signé naa ko ñaan naa yàlla ñun ñëpp ñu signé ko su ko defee incha allah karim ñu ñu faire face parce que faire face jot na murid yi gëmul dara nag nga xam ne amuñu couleur weexuñu ñuuluñu dañu bëgg a jëndee sëñ ak diw sëñ Touba laa yaakaar mais di woy sama leader politique nañ jëm ca àll ba benn way muy sëñ Touba lañ yaakaar adduna sëñ Touba lañ yaakaar alaxira mm-hmm. du duñ ko jëndee ko politicien mm-hmm. salaamaaleykum